maaleykum mbokki internet yi mbokk yi contentement yi ñu jàkkaarloo ak euh, nga xamante ne daanaan la a bëre le 8 janvier journée Fallou production ah, nga xamante ni waaye tey loolu indi fi tey beneen combat moo fi indi wala yeneen combat moo fi indi Balla Gaye ak Boy ku nekk xam ne ni Père Gaston xaali Menga moo ko tëgg ànd ak ki nga xamante mooy Makan Menga mbokk yi loolu le premier janvier la foofu sa arène nationale waaye Siteu ak Papa Sow mbokk xam ngeen moo nekk suñu kanam le 6 ñen ñoo ko tëgg waa jàmbar production ñu ànd seeg Mor Diouf ak ki nga xamante ni mooy Mansour Ba ñuy structure bu bees yaakaar naa seen première sortie euh, papa kii la woon sokk la woon ak ki nga xamante ni mooy Franc stade arène nationale keroog mbokk yi gis ngeen gars yi duy ko mu fees lamb jooju bokk si lamb ji nga xamante ni moo dekkilaat lamb tey nag loolu moo tax ñu jëli ki nga xamante ni mooy champion bi cat yoof di mbaru yoof yoof yaakaar ko loolu ñu fas yéene waxtaan ak moom di la ziar xam nga di nuyu waa Yoof bu baax xam nga di nuyu képp koo xam ne suma mbokk nga rek maa lay nuyu xam nga di nuyu mojj mi nga xam ne moo xewle di ko ñaanal bis bi yàlla na ko jik xam nga yàlla si am mbégte bu kawee comme li ñu si bëggoon quoi incha allah. loolu la ñuy njëkkee sa diggante ak Modou Dia tey ñu ñëw muy tudd ki nga xamante ni mooy première doomam du tur bi maamam bu fi jógee euh, tey sa diggante ak mu Dia boo ma si doon defal benn genre résumé bu ndaw loo may wax. non Modou Dia de franchement parler nekk na nekk na grand frère boo xamante ne lu mu la wax si làmb du dañ benn te bii du la digal si loo si loo xamante ne yëfu caaxaan la quoi franchement parler te lu mu lépp lu mu la wax mooy entraîné ak yoonu làmb te lu mu la wax si làmb kenn mënu kaa dindi yàlla moo ko jégleel loolu quoi xam nga ñu ngi koy ñaanal nag yàlla defal ko combat bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga mu am si victoire parce que daanaan la làmb ji kenn dox ko bëri yàlla xam na loolu billaahi wallaahi taala yàlla nag yàlla defal jàmm may ko combat bu baax xam nga doom ji yàlla na dund ba am day ax baay xam nga di ñaanal soxnaam yàlla defal ko jàmm bu Baba am xam ab bépp famille yàlla defal leen jàmm bu baax. yeah. li ñu njëkkee si combat Siteu Papa Sow. Cat mu war am le 6 novembre ngay champion di ndaanaan yàgg dégg daal yi tey Siteu Papa Sow gis nga leen ñoom ñaar ku ne def na face à la presse Papa Sow njëkk def ñoom Modou Lo ñëpp génn soutenir ko Siteu def keroog fi nga xamante ni mooy John Waar waa John Waar ay mbokkam ñëpp génn soutenir ko tey gis ñaari mbër yi. noo leen gisee. no làmb la. làmb mais mais si de na faire attention bu baax si ndaamale quoi parce que parce que ku naq di la mooy parce que attention si ndaamale si parce que ku naq di la xam nga parce que dafa dafa mën a tàng. te si de li mu li mu li mu gën a foore mooy jàpp galgal waaw te dafa mën a dafa mën a jëli quoi man dama koy wax mu gën a cons si ndaamale parce que man. man ndaamale laa faral moom wax dëgg yàlla. masa nga faral ndaamale masa mooy daan. lan moo a nga faral ndaamale. lan moo waral a faral ndaamale. non yow mii nga faral ndaamale. non xam nga tey ñun xam nga loolu am grand frère bu ñu jox cër rek. Papa Sow joxuma cent franc mais dafa respecté doomu aadama. yee eh, man du ma dara mais fu ma romb damay nuyu. waaw te du ma dara toog na si télé di ma di wax pour man ma gën a yokk suma entraînement gën a gën a vigilant. kon am naa droit faral ko quoi. Ah. loolu moo tax nga ko. non yàlla xam na ne budul loolu sax mais jàmba ji moo tax ma faral ko ma yéene ko victoire. te gi am de takkindaa bu mag bi. Papa Sow moo dëkk bi mbiru jàmm gën. moo daax bëre yàlla xam na loolu. Papa Sow moo daax bëre Siteu. waaw bu far génne Papa moo daax bëre. Hmm. yéen yéen maanaam Papa Sow ban jàpp ne tey moo daax yéen mbir mi bëre. noo xamante ne Papa Sow Siteu doon boo xamante ne tey Papa moo ëpp avantage waaw côté xam nga dafa avantage parce que Siteu njool la moom ndaama la te Papa Sow mën naa mën mën naa bëri do baagarañaan sax mën naa jël tàng jàll wër nomb wala wala wala dëj la waaw mais ku mel ni Siteu nga daw di ko jël gis nañu Siteu yàgg na bëri ay ndaam ku si mel ni Zoss yaakaar naa war na doo ñëpp misaal euh, tey Papa Sow doo jël Siteu est-ce que du fekk tamit safara bi nga xamante ni safara bu doy waar lay doon Siteu xama xama Papa Sow jël ko si jël bi baaxul Siteu jàpp ngembam Papa Sow day sonn moment boobu mais bu paase Siteu bu ko jëlee bu paase bu ko jëlee jël bu normal Siteu day daanu. maa bu ko jëlee jël bu normal Siteu day maa la wax lii de yàlla xam na loolu. yow caat Siteu mën na bëri de. trop mën na foog amul de. mën a bëri morom meeg si a bëri faruma fenn mën a mën a da ngaa a bëri morom meeg si fi mais ma sañoon Papa yàlla na ko daan. moo sañoon daal Papa am ndam. waaw yee. bu dee xeex bi ñoom ñaar. non bu dee xeex Siteu Siteu moo daa xeex moo gën a jot loxo te Siteu bu dóoree góoseem boobu macha allah fu mu dal fu mu dal war naa wàcc. Babacar sifflé wala Sitor wala ñoom kii sifflé Siteu indil kan jaaga jaaga maanaam ni ko Papa kaay ñu indi Diop jox Ndiaye ñoom ñaar ñu rayante est-ce que tamit danger bi du jur du du nekk si camp passé wala trop. non Siteu de ma naa la benn affaire neex neexul bëri xam nga neexul bëri si la moo moo rafet si làmb. waaw yee neexul bëril quoi parce que yow boo amul fi fi du géew moom bu ñu jaabee nga xam ne kii nii la si la moo rafet si kon daal côté bëri bi daal Papa Sow nga ko jox waaye côté xeex bi Siteu nga ko jox. moom laa koy jox waaw. daal Papa nga laa faral yàlla yàlla defal ndam. gis nga leen ñoom ñaar génn nañ seen état de forme. non si li Papa Sow yor même même même forme lay indi le temps rek mais Siteu moom mu ngi mu ngi si forme waaw. am dafa jeex di. non mu ngi si forme gars yi dañuy jaawale jeexa forme. nga ah, maa ko posé mais la ma tontu dafa ne moom instant yi jeexul dafa am doole. gis nga jeexa forme bokkul nit boo amee forme am nga lépp kon affaire lu si masse. lu si ay masse maanaam amul importance da ngay am masse doo doo doo posé 100 kilos nga ñàkk a masse posé 100 kilos loolu làmb loolu la rek. yaa jotoon nañu bëri yaakaar naa amoon coow amoon benn genre jàppal bàyyil en tey ban message nga leen di lancé ñoom ñaari temps yi rawatina supporters yi nga xamante ni ñoo ñëw si stade bi te ñu bàyyi xel aussi tamit xam ni làmba maanaam métier noobal la bu ñu ko yàqal suñu sport national la moom rek lañu am bu ñu kenn yàqal. non làmb jooju ko de mbëri mënuñu si dara parce que Siteu Siteu Siteu ay supporter am macha allah bëri na bëri bëriwaay boo xamante ni contrôle leen du yomb loolu moo tax làmb ji policiers yi foog ñu gën si veillé wax waa CNG parce que Siteu la Siteu moom dëgg yàlla moom buy bëri moom dëkk moo koy topp dëkk moo koy topp dëkk dëkk moo koy topp quoi léegi pour ñooñu contrôler loolu day du yomb mais policier na gën a vigilant rek buñ vigilant si côté Siteu moom lam na dinaa si jàmm ak am na am ñu tëj ak ak combat bi nga xamante ni moom moo am le premier janvier monde du lamb di nga xaar euh, ki nga xam ñi nga xamante ni duñ du lamb sax ñoo ngi xaar combat boobu ngir lu ñu wane keroog mooy euh, théâtre Daniel Serrano ñu diggante Balla Gaye euh, dañ Sadio gi loolu la gars wax ak ki nga xamante mooy doomu dëggool ah di Boy Niang capaculu bi bu bëree mu neex su feccee mu neex combat bu la ma si mën a wax a ah, lamb la maa ngi si si tan naa signature bi yëpp dégg naa li Boy Niang wax dégg naa mais Boy Niang bu ma ni mu ni mu waxee du ko bëree parce que Balla Gaye du mbër moo xamante ne da ngay ñëw pour saax-saaxee ko si jamono ñu toll nii. waxee du bëree loo koy dawal si loolu xanaa. non parce que ma parce que loolu mënul ne mënoo ñëw bëgg Balla Gaye fekk fi mu taxaw même pas deux secondes bëgg ko daal mënul ne. Boy Niang di xale entraîné yor doolam amul amul droit bi bisimilah mu toog si kaw Balla mais adduna xam nga lu ma sàggan ba Balla Gaye jàpp ka foo xam ne day bëre. loolu nga koy doon jàpp bi. waaw loolu laa lay waxal quoi. kon da nga jàpp ne daal jàpp bi avantage Balla Gaye la. non jàpp avantage Balla Gaye la. si ban côté. mais boo ñaar bu ko yóbbu ba ba dernier minute nag si lay avantage moom moo. allégir daal. waaw moo gën a féetee mu sonn moo a féetee xale quoi. déggoo léeg-léeg boo ñaar bu bëree 10 minutes a Balla Gaye Balla Gaye day ñàkk. non 10 minutes 10 minutes jaar na boo ñaar moom bu doon man maire combat bi 5 minutes laa koy bëriwul 10 minutes. yàlla xam na loolu lan moo waral loolu lan moo waral gars yi naan Balla Gaye ak Boy Niang fële ñu jël ba lamb ji yóbbu ko ay 10 minutes wala ay 15 minutes lan la dafa am li nga xam ne dafa manqué waat si Balla Gaye dellu Boy Niang yor wala. non du loolu de Balla Gaye nee na ay supporter am kon mu ngi liggéey lu si war Boy Niang tamit boobu ba léegi mu ngi liggéey franchement parler parce que booy xool liggéey Boy Niang moo gën a liggéey day wax dëgg te yàlla tax rek xam nga Balla Gaye suma mbëru mbëru Sénégal la Boy Niang mbëru Sénégal la dëgg te yàlla tax rek xam nga te Boy Niang borom doxee banta sax mën nga ñëw bëgg a saax saaxe parce que lu mu bomb na am na beneen ngalaji boo xamante ni bu la defee mën ngaa def cadre wala nga daan foofu laay waxee quoi. léegi lu booy ñaa wax si jàpp ngembal yi yow da nga koy digal mu bàyyi Balla Gaye jàpp ngembal ah bu doon man du ma ko digal loolu waaw kot soom seex tamit xam naa du du ko digal loolu parce que xam na la am Balla bu xeexee mu duma ko bu bëree mu daan moo ko mën moo ko bu doon waaw si xeex bi xeex bi mën naa am boo ñaa la gën faytee no Balla Gaye woo dàqu bëre xaar do doole lay wax rek mais Balla dàqu bëre. Balla dàqu bëre Boy waaw doole lay wax rek. kon yow da ngay am da ngay da ngay dund nii Balla Gaye Boy xaw ko ëpp doole tuuti. non Boy moom Boy Niang mooy ëpp doole moom. waaw. Boy Niang jamono toll nii mbëru mbëru Sénégal gi ëpp doole yombul la. yombul. moo tax foo teg loolu. parce que day liggéey moom xaarul saison xaarul hivernal xaarul dara chaque instant mu ngi mu ngi si entraînement am. daa am xeex. man boog pour pour man du am xeex parce que ñu ñaar du nay xeexkat ba Balla Gaye du xeexkat Boy Niang du xeexkat pour man du am xeex dañuy tegante xel nii rek. kon daal làmb jooju amoo koo si faral comme ni nga waxee si Siteu ak Passa. non amul ku ma si faral kilomètre gañ waaw yàlla na jeexee si fair play jeex si jàmm rek jeexee loo xamante ne day yóbbu làmb kanam quoi pas luy delloo làmb ginnaaw. kon musique bi gis ko. non musique moom ku de ku dégg xam nga li la doy xam nga luy xam nga li la doy quoi. loolu moom mooy loolu. yow jàpp ni daal ñaari mbëri daal nañu xaar si ñoom combat bu neex bëri bu neex ak xeex bu neex. non day neex day neex mais pour mu neex mu ngi dépendre si Boy Niang pour mu neex mu ngi dépendre si Boy Niang quoi. Boy Niang daal moo koy neex. waaw moo koy neexal waaw. looy wax ñaari camps yi. ñaari. ñaari camps loolu la wax ñaari mbëri ak seen waa gox waa Guédiawaye waa Pikine. non làmb moom ku la ku la wax day yomb si biir mu ngi lay mu lu neex lu la neex quoi du yomb si côté mbëri du yomb si côté supporters yi du yomb si côté cumbukaay parce que même même dëkk la moo tax di leen séparé bëriwul quoi kon dër lay doon tout le temps. waaye ku wax lay wax li si des bulletin nga am nag le 8 janvier la journée Fallou production ba yaa ngi waaj. bulletin dama koy ñaanal jàmm rek yàlla def na ko jàmm. am nga xale bu doy waar lu mu la ko waxee woon keroog laa la koy waxee am nga jël xale bu doy waar xale bu saf saf. xale bu mën a bëri xale bu mën a bëri am doole am kattan macha allah. caat. fi nga dugg ko sax. man jàmm laa koy ñaanal rek. yàlla bu ñu <laughs> Bulldozer ndaanaan la mbër la champion la. nga loolu est ce que bi nga jël combat bi tàggu nga waayu. waaw ah, non tàggu ma kenn. yaa ngi jëlee sa propre gré. maa ngi jël maa ngi jël sama bopp waaw. ay xale Malika bi. Bulldozer ndaanaan la mbëru mag la. kontaan naa si yow de. yàlla na yàlla defal jàmm di nuyu Fallou Ndiaye bu baax a baax a baax. maa ngi nuyu bu baax sama grand boobu. maa ngi kontaan si yow. jaajëf wax maa ngi ñëw ñu gisee. waaw incha allah. yaa ma yoroon bor. <laughs> loolu problème. kontaan naa. ok waaw kontaan naa kontaan naa kàlla du si moom